problème santé de la reprise des femmes handicapées c' est un problème réel au Sénégal et que commencé woon nañ def benn atelier pour sensibiliser acteurs de la santé yi sensibiliser les le conseil conseils municipaux yi parce que dañu parce que ñun l' communautaire la ñu gën a développé donc au niveau même de des communautés dañ leen war a sensibiliser sensibiliser aussi les acteurs de la santé pour l' accès même de ces femmes dans les structures sanitaires notamment dans le postes sanitaires ak dans le euh, centres de santé tey nag dañu ñëw waxtaan ci affaire césarienne bi nga xam ne dañ ne dafa gratuit gratuit na dëgg la mais acte mooy xotti bi génn doom bi yan baal ma ci wax ji loolu moom moo gratuit mais li ci nekk ordonnance ak lépp ci ginnaaw même hospitalisation bu weesoo ay fani fan parfois on se retrouve avec ay 200000 yoo xam ne da ko war a fay wala 300000 te xam ngeen ne handicap yi moom amul moyen yooyu. muy mutuelle yi muy euh, euh, euh, développement communautaire ak ministère de la santé. ak partenaires yëpp tey dañu bëgg a toog waxtaan. trouver benn solution pour que vraiment affaire santé de la reproduction et notamment la césarienne dootul nekk loo xam ne lu metti la lu diis la ci ci jigéenu. di dundal laago surtout jigéen bi nga xam ne dafa am laago boo xam ne mooy handicapé moteur motrice bi ak ki nga xam ne xëy na dégg-dégg bi lu neex communication lay am vraiment pour ko daal loolu yëpp ñu mën ko jël en charge. ñu def ñu euh, kii comité femmes yi euh, dañu invité tey pour ñu discuter ci gratuité bu ñu wax césarienne. suñu nee césarienne nag vraiment CMU ci euh, la ñuy wax parce que CMU gratuité césarienne lay def di def xale yi amagul juróomi at di def mag ñi am plus de 60 ans di def dialyse ñi nga xam ne dañoo am jalis donc kon lii ñun sawar nañ ci kontaan nañ ci te dañu bëgg waxtaan bi gën a yaatu mu génnee fi yu am solo ñu mën a def recommandation waxtaan ak partenaires yi waxtaan ak suñu agent CMU ñu gën a développé euh, kii bi prise en charge bi gën a kii enrôlé ko daal gën a développé bu baax bu ñu jógee ci fii li ñu fi war a ñu fi nar a tënk ak ñun rapport bi ñu war a def yónnee ko suñu chef de service yaakaar naa di à partir d'aujourd'hui dañ gën a taxawu femmes yi incha allahu rabbi dimbal leen ci soins yi ñuy wax dañu am problème am accès soins comme par exemple césarienne bii ñu nga xam ne dañ leen di limité te loolu li ñu leen limité structure sanitaire li ma la wax il faut ñu waxtaan nag acteur de santé yi ñu xam ne césarienne bañ koy teg dafa am luñ ci luñ ci ci jublu yu ñu war a jël yëpp léegi yooyu yëpp ñu gën ci waxtaan ñu gën leen a jël ñu gën a am accessibilité ci soins yi parce que CMI boo déggee ñu wax ko pour couche bi que le vulnérable loolu moo tax ñu ne CMI donc ñun suñu taxawaay moo gën ñu gën a travail communication bi gën a waxtaan ak ñoom gën a suñu nañ direction communication loolu dina ko